dalee na jàmm mbokk internet yi seen njariñ tv wax ci affaire Bah Diakhaté ak ki nga xam ne moom mooy imam Cheikh Tidiane Ndao ñoom ñee nag am nañu ay nouvelles yu bees yu leen soxal Bah Diakhaté imam Cheikh Tidiane Ndao ñoom war nañ leen a libéré du yàgg dara bu ngeen tàgganulee sax àllarba gi lay doon ñu tegoon leen loxo ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai ñoom nag dañ leen jugé woon ñu waroon tëdd ñetti weer moo doon le 3 te it na boobu condamnation ñu daal di koy tëdd ndax lañ leen toppee woon nag moom mooy diffusion de fausse nouvelle ak amende bu cent mille francs bu ñu war a fay ki nga xam ne moom mooy imaam Cheikh Tidiane Ndaw moom libération warul poser benn problème ka ñuy jaax nag li nga xam ne moom mooy jiixi jaax ak xel ñaar mooy Bah Diakhaté mi nga xam ne dafa am yeneen i procédure judiciaire yu gàllu ci ndoddam googule ndax benn plainte pour diffamation nag lañ ko déposel Ababacar Mboup bu ànd sàmm jikko yi moom moo ko daal di porté woon plainte beneen nag ko doon topp moom daal mooy ay kàddu yu tegginiwul di ay saaga ci kanamu ñëpp euh, di sosal ki nga xam ne moom mooy yow maître Ousseynou Fall accusation initiale yi nga xam ne dafa soxal nag ay kàddu yu tegginuwul jëmale ko ci premier ministre ba jaxate moom dafa publier woon ñaari vidéo di accuser nag ab relation homosexuelle bu am ki nga xam ne nag moom mooy Cheikh Tidiane Ndao moom moom mu diffusé benn audio boo xam ne dafay am ay propos yu ñuy jugé offensant yooyu la chargé nag ñu retenir contre Bah Diakhaté ak imam Cheikh Tidiane Ndao nag te loolu mu fondewu wu ci article deux cent cinquante quatre ak deux cent cinquante cinq bu code pénal sénégalais ñoom ñaar ñooñu le nag war nañ ñi wax seeni mbir bu fekkente ne sax imam Cheikh Tidiane Ndao dinañu ko bàyyi tey moom ba jaxate moom bu sàgganulee bu procédure yooyu doxe rek dana des ca kaso